congruité bu ma bëggoon relever. Mhm. y a un jeune qui travaille à AIBD qui s'appelle Yargassi. yaa Yargassi. mooy ci ci manifestation yi ki doon am na ku sotti woon Ousmane Sonko le liquide là. Mhm. Pastef dit que c'est un militant. Pastef dit que vinaigre la ko doon jox pour mu mën a euh, pour mu mën a noyyi. Mhm. mais ce jeune là ñu ngi ko jël tëj ko personne ne parle de lui. c'est-à-dire ñu ne dossier empoisonnement dossier empoisonnement bi kenn. waxuñu fu muy mujje euh, bu fekkee ne dafa am complot euh, Ousmane Sonko euh, mu mérite la la la la la même peine que ce que jeune là mais ñi ñeneen ñi ñëpp ñu ngi dox seen soxla ñu jël un jeune sénégalais jël ko nekk ràpp ci kaso bi ne il est impliqué dans un dossier d'empoisonnement boo xam ne kenn établir ko et puis on oublie ce jeune là nar a yàq àddinaam nar a yàq liggéeyam et on ne nous dit rien sur le cas de ce jeune-là même Pastef ne parle plus de ce jeune-là yàq avenir nit comme ça may may mun a xam nga lu tax lu tax lu tax prudence baax gis nga kaso bi u kaso yi fi nekk soo demoon génnee ko di rangale di xool dossier par dossier peut-être di nga dem peut-être sa xol dina jeex am na foo xam ne doo fa yegg mais ça nous interpelle erreur non attendez mais mais ça interpelle notre conscience erreur judiciaire fépp lañ ko xam mais may mun a gis nga ba tey yàgg nga ci métier bi macha allah couvrir nga fi euh, bi nga nekkee reporter ak consort gis nga fii nit ñu tëj ko ay at dem ba koy euh, détention détention provisoire xaw ma loolu même ay organisation de droits de l'homme yi kaas nañ fi dem ba jour jugement bi ñu xool xoolaat kayit yi xa fekk def ko dara dañ ko tuumaloon mais États-Unis bii ñooy soo waxee sénégalais ak keneen ak keneen suñu cité démocratie suñu nee France États-Unis wala ñu États-Unis France gis nga fa nit ñu condamné la peine de mort quarante ans de prison ñu def après ay dama expliquer ay test bàyyi ma yegale ay test ADN ak yooyu setal la donc xam nga loolu man du ma sura xam nga image yi nga gis laa gis image yi nga gis may mun a foofu Sonko nekkoon ah xam nga kii ngay wax nii nga ni bon du ku kenn xamu ko gis nga foofu Sonko de nekkoon booy boobu nekk fa man dew ma fa yow demoo fa soo fa demoon sotti ko ndox tamit wala dara balaa ñuy lijjanti ndox nga ko sotti wala lu koy dindil gaz euh, lacrymogène ak yooyu njombe dina la dina la dal donc loolu mënuma ci yëy ma ci yàbbi parce que honnêtement du daw wax de honnêtement d'abord xawma li ma ci gis ci affaire boobu mooy sotti ndox et ñii ni da ko doon jéem a agressé et nguur gee ko yónni mais Ousmane Sonko nee na kooku agressé waaw mais bàyyi mais non si show show bi xam nga lu nekk wax nañ ko kii peut-être nguur gee ko yónni kii nervi la kii lii la finalement Ousmane Sonko wax mais bon peut c'est au c'est à la justice d'apprécier man munuma taxaw fii honnêtement parce que dama far wala fen la rek ni wëy bëgg a juger koo xam ne xaw ma ko mais dama ne la su fekkee comme par exemple mais ni nga ko waxee noonu la demee noonu xam nga yow yaa ko noonu la demee te loolu la ñu wax ñeneen ñi waxaat ko xaw ma ndax noonu la demee mais naa la wax affaire may mais may munu peut-être ñu bari ñu jàpp fii que fii France bërki démb xam nga booy na booy booy boo xam ne doy na waar soo moytul jàpp nañ ay dizaine dizaine yoo xam ne xam nga lan moo tax ñu jàpp leen dañ kumpa ak dem seetaan may mun a fii di nga fi fekk njombe. mais depuis mars ce jeune là est maintenu dans les liens de la détention oui euh, léttuñu ko firiwuñu ko. et puis dossier pour lequel il est en détention kenn waxu ci kenn yeeyu ci yàbbi classé nañ ko sans suite. qu'est-ce qui devrait expliquer la détention de ce jeune-là beneen bi mooy. c'est c'est ces retours de parquet-là. Birame Souleye Diop on va en parler. mais ñu ngi ko téye depuis léegi mu mat une semaine d'incessant retour de de de de, de parquet euh, mu statué wuñu ci ci ci ci kaawam. Euh, ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne jàpp nañ leen pour ay mbir yoo xam ne euh, vraiment mun nañ ko lijjanti rapidement. ñoom ñëpp ñu jël leen tënk leen ci ci ci ci ci kaso bi la la l'objectif d'une justice c'est de rendre la justice c'est de protéger la communauté c'est de protéger la liberté de l'individu mais c'est pas de briser des vies justice bi ñu am fii yeneen dëkk am ko toujours du ay jinne du ay malaaka ñoo si nekk c'est l'œuvre humaine et l'œuvre humaine par essence est imparfaite mais comparons lu comparable ki ngay wax xawuma ko xamaanuma ko jékki-jékki wóor ni put dafa am ay mbokk am ndey am baay am ay frère am ay sœur peut-être ñu ngi may seetaan duma ci wax loo xam ni dama ko wax rek par par parloo par bëgg parce que tamit yéen a nekk borom a cee fanaan bàyyi ma yegale dama ne la yéen nekk borom a fanaan duma wax ci kooku loo xam ni wóoruma dama ne la li nga ci am laa ci am mais peut-être les magistrats les góor ak jigéen yi yor dossier bi ñu ngi seetaan peut-être may peut-être li ñuy wax dugg na seen nopp dama la may gis nga man damay faral di wax moom piir ennemi yéene ma ko kaso parce que kaso musuma fu dugg de yàlla na mu ump ump mbooloom jullit mais ci wetu kaso laa màggee 100 mètres ak sama kër maam ñoo jàkkaarloo donc xam naa la ci kaso yéene wu ma ko nit mais demal ni foo comparer le comparable xam nga kii nga wax d'abord may man mënuma sax jaar ci turam yow mënoo sax jaar ci turam donc tout porte à croire que peut-être que peut-être am peut-être erreur moo am mais su fekkee erreur moo am li ñu mën a souhaiter ah mooy comme erreur bi ko dal noonu dal ah may mun a dans cette affaire là dëkk bi yëngatu ah moor yi ñu compter ñu seen bakkan faatu euh, yow gis xoolal gis nga image yoo xam ni dangay gis ni ko waxuma benn force de l'ordre soo dindee tenue bi dindi galon yee li mu takk mbaxana bi yëpp sénégalais la comme ñun ay sénégalais tiim ko mu gaañ ñu koy dóor ay xeer kenn laajul finalité bi kan la kooku dee na wala deewul ak leen donc man la dans cette ambiance là ku ci nekk parce que da nga far benn parti politique yaa xam bennoo APR wala opposition ngay yéene sa moroom musiba mais scienceal ni boule bi day tourner boule bi day tourner parce que peut-être un jour yàlla rek moo xam ne muy def ñun dinañ ko ne politique ñu dem ci ko jege ñu ñu ñu ne abal leen ñu dellu ci opposition mais maintenant si ci pouvoir bi ñu nekk ñuy défendre loo xam ni teguwul ci yoon di yéene nit lu bon teguwul ci yoon mais suba yàlla ay affaire am dafa fort suba loolu mën na wóolu donc façon compara comparaison day day day du benn donc moo tax kaaw nit kooku ce jeune la physiquement ci ni ma ko gisee di sénégalais du ma ci yéey duma ci ŋàbbi parce que may mandu dafa baax te duma ci wax aussi lu bon intérieurement comme que dama ne je suis un jullit la mais su ma sañoon ma ni kooku suba yàlla ay mbiram leer mu dellu ci famille dellu si njabootam mais bu ko comparé ak Birame Souleye